Thank you. waaye heure ndogu jot nga toog nii mel ni ko defurul ndogu. eh yow lay waxal. ki nga jox cent mille francs pour mu préparer kooram kooku nga demal ci moom mu defaral la ndogu man xaw ma góor buy jeng. waaw mais ki dafa dof wala la la cent mille francs wala koo fi dégg ay waxi cent mille francs fii kan lañ fi jox cent mille. góor daal bu yoree ñaari jabar day yemale ki nga jox cent mille francs pour mu préparer kooram demal ci kooku mu defal la ndogu waaye bu dee man rek tey doo dërëx. Eh, Kaja Kaja. waaw. eh kaay yow farale bu xaalis mooy dégg fi ay 100000 francs 100000 francs wala la. papa lu xew yow maa la jox 100000 francs pour nga préparer ci sa koor. Ah. man joxoo ma dara. man li ma war a jox dépense rek rek defe naa ne ayewu ma da nga may jox 100000 francs. da ngaa la jugal defari ndogu nga may wax ay wax it. dofu ma jënd ngàdd ma yaa ko jox 100000 francs. Eh, eh, eh, waaw yéen lu xew. ah moom nga fekk may wax ni heure ndogu jot jugal nga defari ndogu mu naan ma damaa jox kii 100000 francs xaw ma pour mu préparer xaw ma lan. jom ba àddunay baax góor boo yoree ñaari jabar da nga yemale waaye cofeel mi dafa commencé jéng jox kee mil pour mu préparer kooram man mu wocc ma. waaye pël bu rafet waaye bu àddunay baax tamit jigéen day suturaal góor ah. yow lu tere sa jëkkër ji bu la joxul sax ah nga dugg si biir néeg bi yàlla def guddi def bu cëg nga ndax si dugg nga da nga defar ndogu yow nag yow nag waaw mais li muy wax daa amul sax aw wax na amul ba tax na kon doo ñu defari ndogu ci demee waroon nga togg ndogu après nag nga réglé ko nag sax xam naa la nag ay waay ay waay ay waay bi tey neex na day waaraate bi neex na man daal ci jumaa ja laa jóge waaraatu tey bu dul waay dégg naa kenn du suñ boroom de moo fi déglu looy yàlla de laa demoon ca jumaa ja laa demoon di fa déglu ay waaraate yu neex yoo xam ne ku nekk lang kii lang gauche kii lang droite xoolal kii rek tëb mel ni ku jógee Arabie Saoudite rek. eh waa dégg ah, ngeen dee fi aawo ñaareel. jaw ma man man daal seen kër gi ah, jaaxal na ah xam nga yow lan laa lay ñaan. jógal nga dem toppatoo sa ndogu li ñu ndogu. bu bàyyi bàyyi li ngay def itam xeex day jeex. da ngaa war a da ngaa war a def kii kon boo léegi dafa warugul ndogu. man tey gi ma xiif gi ma xiif. xoolal defaral jooyee eh, xam nga lan la sa jëkkër bu la waxee da nga koy dugal defal bi léegi yow daal problème mu 100000 francs tax nga ne ci tàkku ci kër yow yow problème mu 100000 francs wu yow foo déggee loolu. dama laaj foo déggee ay waxi 100000 ak yow dafa jot yow maman yaa ma fekk ci suba ci sama néeg nga toog ma toog nga ne ma sa jëkkër da jël na 100000 francs jox sa wujj bi pour mu préparer kooram yaa ko wax wala ko. gis nga yow fen yi ngay fen lay aaw mën a fen ci yow laa ko gisee. maman eh, eh, ma ko eh, Moustapha bi laa jógee aywaay tey ngeen naa baax. maman xoolal entre nous lii yaa ko wax. ñun xamante nañ bu baax yaa wax lii maman yaa ko wax bu ko weddi ah. maman xam nga yow maa ngi yow ay xar lañ dañuy waxal sama diggante man ak yow entour man ak yow. nga wax dëgg rek te yàlla rek a tax maman. maman li waxtaanu biir nee la rek du génn de. eh waa léegi waxal man dóoruma la duma la dóor léegi waxal. maman. waxal dëgg rek te yàlla tax xam nga jumaa ja nga jóge ne yàlla nee na yónnente bi nee na ñëw fii di waar nit yi waxal dëgg rek te yàlla tax yaa ko wax wala waxoo ko. ah bi de ustaas bi de am na lu mu mhm. na kuy fen. Mhm. ku wax lu mhm. yàlla dalay lakk dugal la biir jaxaan na te nee na nag balaa ngaa dee sax danga koy gis ndax yàlla. day jël saako këriñ. lakk nekk benn doom. teg ko sa biir làmmiñ bi. ko wax. ko jox.